ñoo ngi nekk ba léegi ci dundu yonent yàlla Muusa alayhi salaam ak firawna alayhi laanatullah tey ñoo ngi dugg juróom-ñeenteelu dars bi borom bi ne wa kadalika zuyyina li firawna suu amali Muusa bi mu ñëwee daawa firawn wan ko ay barahin fatihat muy ay lay yu fus njabarkat yi nangu firawna jàpp njabarkat yi roy leen xam ngeen ni mu'minu aali firawn am na lu mu waxoon muy lu am solo muy yaa qawmi inni axaafu alaykum yowma tanaad yéen samaw nit ragal naa ci yéen bisub wootee ba bis boobu yéen ñépp da ngeen daw yowma tuwalluuna mudbirin maa lakum min allahi min asim keroog da daw te du ngeen mucc yowmal qiyaam ku daw amoo foo jëm bu nit ñépp dekkee taxaw tiit keroog ñu bari dañuy bëgg daw waaye loo daw daw doo mën a rëcc moo tax mu ne leen maa lakum min allahi min asim du ngeen am kenn ku leen musal ci yàlla ku leen muccal ci yàlla taala wa tabarak wa man yudlilillah fama lahu min haad mu ne képp ku yàlla réeral kenn mënulaa jubal loolu lu nuy war di bàyyi xel la ku jub yàlla la may njub yàlla nañu yàlla may njub waaye ku réerit yàlla moo la seetaan ci mbaaxam yàlla nañu yàlla musal ci réer firawna wax yi ñu wax yépp taxul mu dellu ginnaaw kon daal firawna jëfam ju ñaaw rek moo rafet ci kanamam wa kadalika zuyyina li firawna suu amali firawna ñaaw jëfam rek moo rafet ci moom lan mooy ñaaw jëf mooy bëgg rey Muusa bëgg tëj Muusa bëgg a rey banu Israil léeg-léeg buur dina féttéerlu su féttéerloo nag képp ku ko wax ni moytul day bañ bul def day def lan moo tax dafa gis ni armée bi yépp ci loxoom la nekk exécutif yépp ci loxoom la nekk justice ci loxoom la nekk waaye fàtte na ne nit ñi moo leen ëpp doole te moom am na ku ëpp doole loolu jàpp firawna nag mu dem ba gis ni comme Muusa nee na yàlla mi ngi ci kaw asamaan firawna mer borom bi ne wa qaala firawnu ya haamaanu bnu li sarxan laalli ablugu al asbaab asbaab alsamawati fa attaliu ila ilahi muusa wa inni la adunnuhu kaadiba wa kadalika zuyina li firawna suu amalih wa sudda an ilsabil wa ma kaydu firawna illa fi tabab borom bi ne firawn woo Haaman mooy premier ministre am mooy conseil technique am ne ko ibni li sarxa Moussa nee na yàlla mi ngi ci kaw léegi tabaxal ma benn lu kawe gratte walla wala nu ñu ko mën a tuddee su ko defee ma yéeg ba foofu ndax ma gis yàlla Moussa Firawna moo def moom foog na ni comme Moussa nee na yàlla mooy borom asamaan ak suuf rek mu ne kon bu yéegee fu kawe dana gis yàlla moo tax mu ne la anni ablugul asbab ndax ma mën a jot sabab yi tax ma gis yàllay Muusa ndax man jàpp ma ni kenn yàlla la sama wet ne ko xam nga lu ma wax asbaab as-samaawaat sabab yi may jot loo asamaan yi su ko defee fa attali ilaa ilaahi Muusa su ko defee ma xool yërndu yàlla yi Muusa ba ci yàgg ne wa inni la adunnuhu kaadiba man sax damaa foog ni Moussa waxul dëgg wa inni la adunnuhu kaadiba borom bi ne loolu moo tax aw na jëfam ju ñaaw rafet ci kanamam ñu dox digganteem ak yoonu njub wa sudd ani sabil ñu bëri dañuy tëj yoonu njub lépp luy tax nit ñi jub boo ko fàttee yaa ngi tëj yoonu njub léeg-léeg jàkka mën ngaa tax ba kenn du fa wax diine yaa ngi tëj yoonu njub léeg-léeg jàngalekat mën nga koo tee jàngale léeg-léeg waxkat mën nga koo tee wax ci lu baax nit ñépp nga heurté leen ba kenn du dem sa jëf ju ñaaw moo rafet sa wet ba nga foog ni li nga nekkee lu baax la moo tax ngay bañ ne du fi amee loolu nangam nangam borom bi ne wa ma kaydu firawna illa fi tabab nee na pexem firawna nekkul lu dul alku magu kajoor yi ñoom dañu ko daan firee tabaab mooy jikkoy tubaab wa ma kaydu firawna illa fi tabab firawna pexem daan nekkul lu dul pexem tubaab pexem tubaab daal mooy nguur rek la ñu xam laa ilaha wal xayaatu madda yàlla amul moyen yi foo noo amee baax na mbokk yi firawna fàtte na ni wa inna al axirata hiya daarul qaraar ak lu munti am yow ndaw lii yow xale bi yow mag yow jullit bii allaaxira mooy kër gu sax àdduna saxut milliardaire bu fi nekk dinga fi bàyyi say milliard millionnaire bu fi nekk di ko fi bàyyi ana juga kebe faatu na ay na jiili mbay faatu na képp ku ñu la waxaloon mu am tur walla mu am xam-xam walla mu bërile deera kon kay àdduna du kër jaar jàll la loo fii def te àndul ak ragal yàlla ci perte rek lay mujj kër gu sax gi wal axiratu xayrun wa abqa borom bi nee na ut leen alaxira ndax alaxira moo gën te moo des wala al axiratu xayrun laka min al ula góorgóorlul ba alaxira gënal la àdduna ndax leneen loo ut lu dul alaaxira perte nga moo tax mu ne wa inna al axira hiya alaaxira mooy kërug sax gi mooy kër goo xam ni ku fa ñëw danga sax ci àjjana yal nañ ko yàlla may ku sax ci àjjana su lépp dana réglé mbokk yi baat bi kan moo ko doon wax mooy mu'minu aali firawn mbokk firawna boobu gëm di leen ko wax en plein réunion xanaa kenn newu ko yow sa manhaj bi leerul de waaye nan la def taxaw ci digg mbooloo mi wax nit ñi li mu yaakaar te gëm ko boole ci respect bu mag te mat noonu la doxale wax na leen ba waar leen dem na sax nag ba léegi fu mu mujj mooy di waaraate nag nëbbootul wa qaala alladi aamana ya qawmi ittabicuuni ahdikum sabila arrashaad يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب سورة غفر borom bi nee na wa qaala alladi aaman yaa qawmi ittabiuuni ahdikum sabila rasad yàlla ñu yàlla dimbale borom bi nee na gis nga kooku gëm adduna yi lëmm Égypte yépp ña fa gëm matuñu juróom Muusaa la ak Haaruun ak Asiya jabaru firawna di nëbbatu ak mu'minu aali firawna moo leen te mu'minu aali firawna doomu bàjjeenu firawna la ñii ne doomu baayam la mu wax ba ci yàgg jóg yaram bi tàng yaa qawmi ittabi'uuni ahdikum sabila rasad camarade topp leen ma ma teg leen ci yoon bu jub xocc daa yi noonu lay def ittabi'uuni ahdikum sabila rasad sabila rasad nag jarul ragal yoonu njub bu ci tiit bu ci ragal soobul ci yoon bi te taxaw yàlla lay àggale xalaatu nit du ko defar ngëm-ngëm la ngëm-ngëm googu nag boo ko amee rek yàlla moo lay aar kon wax ne nit ñi moom rek ci kër firawna pale firawna firawna buggul dégg yàlla buggul ku ñu ko waxal ku baax waa ji ne leen ittabiuni ahdikum sabila rachad topp leen ma su ngeen ma toppee ma wan leen yoon bu jub yoon boobu mooy yoonu yonent yi allahu akbar newaat yaa qawmi hadihi innama hadihi xayaatu dunya mataa wa inna al axirata hiya daaru lqaraar eey yéen samay nit camarade yéen samay mbokk kaay ma wax leen ni àdduna bii palais firawna bii fii la yem assemblée nationale fii la yem tribunal fii la yem étage yu kawe yi fii la yem gratte-ciel yi la yem lépp lu ñuy jaay ci àdduna fii la yem innama haadihi xayaatu dunia àdduna rek la nag bu ñu la nee président it fii la yam boo dee lu ñuy wax le président est mort noo munti toll bis dina ñëw nga moor noo munti toll bis dina ñëw sa alal bàyyi la ginnaaw nga bàyyi ko ginnaaw say jabar nga bàyyi leen ginnaaw say doom nga bàyyi leen ginnaaw say kër oto yi kàddu gi autorité bi soo doon wax ñuy def ngay tere ñuy bàyyi lan la ñuy wax ana président dee na géwél yi ñëw président kay moo def nangam ak nangam moo fi def nangam ak nangam laa solo fii sa parti ñëw moo defar tëli bi moo defar tëli bee moo defar yoon bi moo defar yoon bee moo wàññiwoon woon ceeb moo wàññiwoon woon diwlin moo wàññiwoon suukar moo fi indi woon nangam moom daal mi ngi ci keesam tontuwul indi la teg la wooyi armée mu ñëw armée ñëw waroon a wax yarhamuhullah yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal waaye armée dañuy ñëw xam nga nu ñu lay ñaanalee papi baba baba noonu lañ lay ñaanalee subhanallah président bu dee moo tiitlu ñu war laa ñaanal ñuy fanfar papi baba boob damay président deena subhanallah ñu tegal la ay fleur fleur lan lay jëriñ ku dee jël drapeau nation bi tegal la lan lay jëriñ ku dee drapeau bu boo dee it du tax ñu ne nga dekki ñu ne kii mooy président Sénégal déedéet fa la ministre yi jooy député yi jooy géwél yi yuuxu waykat yi way borom bi ne en tout cas daal mbiram jeex na malakul mawti def na mission jeex na su fekkee ku baaxoon nga alhamdulilah su dee ku bonoon nga li daloon firawna dal la mbokk yi allahu akbar innama hadihi al hayatu mataa adduna bi ay poñet dong la ku la bëgg ngir sa alal bis dana ñëw mu bàyyi la ku la topp bis dana ñëw mu bàyyi la da nga président yenu nañ ko yóbbu nañ ko gas nañ ba mu xóot suul nañ ko lan moo tax dugaluñ ko pale lu tax suuluñ ko pale ñëw suul la bàyyi la suñ la bàyyee nga dem sa waa parti dootuñu ñëw ñàkk nga leen say xarit ñàkk nga leen say àndandoo say jabar say doom yeneen xarit ngay am ci biir bàmmeel yooyu ñooy ñan soo duggee biir bàmmeel xarit bi ngay njëkk am mooy suuf ci suuf lañ la xaree woon moo tax nga nekkaat xaritu suuf dañu laa xaroon génn ci suuf kulluna min aadama wa aadama min turab ñun ñépp ci aadama lañ jóge aadama ci suuf la kon nag ku xaree woon ci suuf nga delluwaat nga ci biir suuf ñaareelu xarit bi ci bàmmeel ay sax ñooy ñëw saxu bàmmeel ni nga doon seeñoo giñaar gi di muucu yax yi sax yi ñëw ñoom pooju xar bi lu mu duufee woon faar yi sax yi ñëw dugg ci sa faar yii di muucu sa nopp yii di lekk sa lex yii di lekk sa bakkan ñooñu ñooy sa xarit tey max yi ñëw luy seen mission daldi di naan sa yax ñetti fan ñu nëpp président nëpp président toj na lekk nañ président ana garde rapproché président ana nañu jege woon président lu tee ñuy lekk président pourquoi président moom garde rapproché fu mu mënti yem laa bàmmeel moo tax mu ne innama hadihi alhayatu dunia mata wa inna al axirata hiya daarul qaraar li ma leen di waxal mooy allaaxira <laughs> mooy kër de même boo amul àdduna kër fexeel tabax sa këru allaaxira këru allaaxira noo koy tabaxee julli jaamu yàlla topp yàlla déggal yonent bi respecté ko topp sa diine soo ko defee bis bu nekk yaa ngi jënd ciment yaa ngi jënd matériel yaa ngi fay tabaxkat bis bu ne léegi nag mu ne man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha ku def lu bon di nga ko fayiku wallahi mboolem président bu mës a def lu bon fayiku nga ko avant ngay dee amul noo toll ci def lu bon di nga ko fayiku wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fa ulaika yadxuluuna aljanna yurzaquuna fiha bi gayri xisaab mu ne képp ku def lu baax moo xam góor nga walla jigéen te bi nga koy def da gëm yéen da ngeen dugg àjjana yàlla nañu yàlla yóbbu àjjana allahu akbar di wax ba ci yàgg nit ñi naan ko noo yow da nga bëri problème quoi ñun firaw la lañ bëgg a toppan ah. àdduna bi moom il faut nga def dara pour am dara il faut nga politik nangam nangam mu waat leen yaa qawm ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار الله أكبر ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار mu ne ay yéen sama nit maa ngi leen di woo di leen waar di leen xëcc ngir ñu ànd àjjana ad'uukum ila najat kay leen ñu ànd ak Muusa ñu dem àjjana kay leen ñu ànd ak Muhammad ñu dem àjjana kaay leen ci diine jii ngeen bañ topp grand théâtre topp Sorano topp musique topp football topp fecc topp fo topp mooy yàlla mëni leen ñëw leen ngeen ni ibaadu laa ñëw leen ngeen ni intégriste laa ñëw leen ngeen ni salafi ñëw leen ngeen ni terroriste maa ngi leen di woo ci diine buggu leen na ñëw toog leen waaye bu leen yàq li may woote jubluwaay bi mooy ngeen yàq li may woote moo tax ngeen di ma jiiñ terroriste ngeen di ma jiiñ dama weddi mag ñi ngeen di ma waxal bugguma mag ñi ma ni loolu pourquoi ngeen di ko wax maa li aduukum ila najaat laak man ba ma leen di woo pour ngeen mucc yéen wa tad'uuna ni ila naar allahu akbar ngeen di ma woo bëgg maa jëme safara mooy toppal mag ñi toppal nangam islaam du mag diine du xalaatu mag diine mbirum yàlla sunna mag magut sunna bàyyi leen bu ñu leen waxee diine ngeen controversé wax ji contourné ko jëme ko feneen déedéet topp leen li yàlla jàngale maa ngi leen di woo pour ñu mucc ngeen di ma woo ñu jëm safara man dey maa ngi leen di wax ni yéen tad'uuna nii li akfura billah wa ushrika bihi maa laysa li bihi ilm yéen daal da ngeen maa bëgg a woo ngir ma weddi yàlla jamais du ma ko def yàlla li mu ñu sant mooy topp yonent bi wa in tutiuhu tahtadu yàlla ne nee nañu wa atiu llaha wa atiu rasul yàlla moo ñu wax walakum fi rasulillahi uswatun xasana loolu lépp yàlla tuddul kenn yàlla waxul walakum fi mag ñi uswatun xasana déedéet walakum fi mag ñi walakum fi diinay mag ñi uswatun xasana wa in tutiihu mag ñi tahtadu yàlla waxu ko de waaye lan lañu wax topp leen muhammad nga topp Muhammad nag ñu ne xale la diinay xale la xalaatu xale la maa bañ tadduuna nii li akfura billah ngeen wooma ngir ma weddi yàlla yonent bi li mu jàngale ngeen bañ li mag ñi indi gënal leen di yonent bi jàngale yonent bi ne kullu bidaatin dalaala ngeen nit bidaa la mais rafet na yonent moo leen gën a xam lu rafet ndax wax na ni rafet na ndox yonent bi ndax xamul lu rafet loolu mu tere musu koo def boo ko waxee yow yaay noonu nit ñi ngeen di ma woo li akfura billah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm ngeen bëgg ma bokkaale yàlla ci lu ma amul benn xam-xam xanaa xamu képp ku bokkaale amuloo lay amuloo lay wallahi amuloo lay képp ku bokkaale yàlla amuloo lay léegi nag li ngeen ma bëgg a bokkaaleloo aw ma ci xam-xam du ma ko def wa ana ad'ukum ila al aziz al man de li ma leen di wooye lu yomb la mooy ñu dem ci yàlla mu tedd moomu di jéggale ay bàkkaar ila al aziz ci laa leen di woo waaye nag ngeen nekk fii naan dangeen may woo ci ay caaxaan te li ngeen may wooye du ak woote ci àdduna du ak woote ci àllaaxira man ak yéen ñun ñépp danañu dellu taxaw ci kanam yàlla wa anna maraddana ila allah ci yàlla lañuy ñuy dellu de suñu demee keroog di ngeen xam ne wa anna al musrifina hum asxaabu nnaar yàqkat yi danañu xam ne ñooy waa safar jékki ba ci yàgg nag jóg jóg taxaw gaa yi di ko xool <coughs> waar naa leen ngeen bañ wax naa ngeen dellu ginnaaw kaay leen julli ngeen bañ kaay leen woor ngeen bañ kaay leen topp yonent bi ngeen bañ kaay leen def lu baax ngeen bañ fa sa tazkuruuna ma aqulu lakum fa sa tazkuruuna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب من فستذكرون ما أقول لكم قلنا يوم القيامة li gën a doy waar bu ñu dekkee ñi doon def lu baax di woote di daawa nekk ci sunna suñu jógee kanam yi day weex tàll yàlla nañ ci yàlla boole yow ma tabb yaddu wujuh ñi bañoon sunna bañ diine seen kanam day lëndëm wa taswaddu wujuh seen kanam tarhaquha qatara borom bi ne ulaayka humul kafaratul fajar gàcce mooy nekk ci seen kanam yàlla ne na torox mooy nekk ci seen kanam ñii ñooy band yi ñii ñooy saay-saay yi su ko defee nag ngeen gis ñu doon woote yonent yi ak ñi mel ni ñoom ngeen fa pour euh, pourtant de doon nañu ko wax dañoo bañoon rek ñun dañoo toppoon sëriñ si rek ndeysaan xeeb ko naan kii ibaadu la kii ustaas la kii nàngam la ay waaye waroon nañ koo topp waaye foofu musiba borom bi ne yow ma yaaddu zalimu ala yadayhi yaa laytana ataana allaha wa ataana aka neexoon ñu topp la topp muhammad mooy na ngeen fàttaliku ne kii doon na leen waar jëmal julli ci jumaa bi kii sa nga ne kii day weddi kii day diingat day nàngam tey lu muy mujj ñëpp na ah, kii day la mu leen wax nekk dëgg la fa sa tazkuruna ma lakum li ma leen bi wax nii bis dina ñëw ngeen fàttaliku ko de waaye dana fekk réccu dana fekk jëf wëy mu teg ca wa ufawidu amri ila allah samay mbir yépp wéer naa ko ci yàlla su ngeen ma mënee tëj tëj leen ma su ngeen ma mënee rey rey leen ma lu leen bëgg def leen waaye man wa ufawidu amri ila allah yàlla laa delloo sama mbir mooy aarkat bi moo mën a aar mooy musale ku yàlla aar kenn du la mënal dara ku yàlla musal kenn du la mënal dara wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad yàlla ñépp lay gis yow mi fanaanoo diw naa ko yàlla fekke na ko li ngay def yàlla xam na ko bis dina ñëw ñu wax la ko ci sa bàmmeel doo pexe bis dina ñëw nga taxaw doom pexe yow juge bi àtte ki tëj ko bis dina ñëw nga taxaw yow juge bi di jënd ndax ki la jënd daa am pour tëjal diw nga tëj ko defal lu neex nga def bis dina ñëw nga taxaw ci kanamu yàlla doo am avocat moom du am avocat ndax allahu shahidun ala kulli shay moo tax borom bi ne pexe yi ñu pexe woon ngir rey ko ngir tëj ko ngir toroxal ko loolu lépp ndeysaan fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru lu bon li ñu pexe woon yëpp yàlla aar na ko te àggul ci moom yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañu yàlla aar guddi ak bëccëg yàlla nañu yàlla aar comme ni mu aaree asamaan ak suuf yàlla nañu yàlla aar comme ni mu aaree asamaan suuf yàlla nañu yàlla aar comme ni mu aaree asamaan ak suuf borom bi nee na musal ko fa waqaahu llahu sayyiaati ma maqaru ba pare nag wëlbatiku wa xaaqa bi aali firawna suul azab yàlla nee na mbugal mu bon wàcc ci kër firawna ñu ne ko yàlla boobu mooy ban mu ne yowmal qiyaam annaaru yuraduuna alayha guduwan wa asiya suba gi dañ leen di lakk bu ñu xëm ñu nekkaat nit ngoon gi ñu lakk leen bu mu xëm loolu ci bàmmeel la de ñoom ba ñu dee ba léegi bis bu nekk ñu ngi leen di lakk suba di leen lakk ngoon yowmal qiyaam ñu dugg safara xam nga yowmal qiyaam lan mooy ordre bi ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب bu bis penc taxawee yàlla ne jël leen Firawna ak njabootam ñëpp ngeen dugal leen ci mbugal mu metti mbugal mu tar mbugal mu jéggi dayo waa ji dem nag yàlla commencé nag di indil waa kër Firawna ay mbir di leen tegal ay jafe-jafe commencé nañ dëkk bi di am jafe-jafe ñu ne Moussa dafa gaaf Moussa bi mu fi ñëwee wax beneen yàlla ba léegi dëkk bi doxot yàlla indi leen bi ñuy woowee sécheresse suñu bàyyee du nangu wa laqad axadna ala firawna bissinina wa naqsin min alsamarati laallahum yaddakkaruun borom bi nee na njabootu firawna indil nañu leen sécheresse nawet bi baaxatul meññeent bi wàññi ko na wa naqsim min al am min asamarat yàlla nee na laallahum yadakkaruun ngir ñu waaru loolu doo nga tax def ko waaye bañ nañu dégguñu digal mooy nañ fu ñu mucc fa ida jaatuhum alxasana qaalu lana haadihi su lu neex ñëwee ñu ne ñun ñoo ko liggéey suñu xalaat la ñun ñoo ko def wa in tusibhum sayyi'a su musiba ñëwee metti yattayaru bi Muusa wa man maa su mbir ñu maa xàllaa Muusa bi mu fi ba léegi dëkk bi dara doxut indi fi ay muuraay bi jigéen ñi commencé muuru ba léegi dara doxut nangam nangam nangam nangam yàgg nañ koo wax borom bi ne ala innama tairuhum inda li ñuy woowee gaaf ci yàlla la yàlla ko indi de du Moussa Moussa munta indi loolu walakin bi ne li ëpp ci ñoom xamuñu mbokk yi kon li war mooy ñuy bàyyi xel toujours alquran daf ñuy jàngal ngir jàjju ñu waar ñu wax ñu fan la ñu war a jaar ngir ñu nekk ñu jub mag day dee waaye ndaw day dee góor day dee jigéen day dee waaye mag day dem àjjana ndaw day dem àjjana góor day dem àjjana jigéen day dem àjjana waaye it safaan biit am na mag day dem safara ndaw day dem safara jigéen day dem safara góor day dem safara alaaxira ñaar rekk fa nekk fariqun fi janna wa fi sair mbooloo mii ajjana mbooloo mee safara yàlla nañ ci yàlla musal borom bi nag di yabal ay nattoom ak i mbugalam ci njabootu firawna benn par benn incha allah suñu ñëwee dars bii di ñëw mooy fukkeelu dars bi lañuy dugg ci bind boobu nga xamante ne natt yi commencé naa ñëwal firawna ak njabootam yàlla na yàlla def ci ñu dégg ak topp def ko ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi